ma ñëw nag ci li nga xam ne moom laa daan def rek te depuis deux mille vingt et un je n'ai fait que presque daan naa ko def nag lu jiitu parce que Ousmane Sonko bi ñu dajee mille assemblée 2017 man yàlla moo dogal man bëgguma xeex mais bëgg naa jàmbaar muy jàmbaar rek gis lu nekk na ba en février 2021 ñu andi ba musiba naaru laay boo xam ne laaju ko wutu ko cherché wu ko man nag ci sama gis-gisu bopp moo di benn malaaka dootul wàccati ci suuf di weddil tuuma niñ ko weddile woon sama turandoo ay gor rek ñoo mën a wóoloonte te gëm yàlla nag parce que ci kanamu kiñ koy weddi dafa bari doole lool ñu gëm yàlla rek xam nit te sëriñ ba dañu woon boo àndeek nit na nga ko mokkal ni nga mokkale fàtte xam nit mën koo weddi loo xam ne tuuma la ju ko topp te nar koo gàllankoor ñuy dem te booba taanak wax dëgg yàlla ñi mënoon loolu bariwuñu mois de février bi nga xamee nit ñi jëkk nañu daje kër Ousmane Sonko am na koo xam ne moo ñëw song ko ni ko lii daje sa kër su ma ko amoon mu ne mbaa mun ko Macky Sall du fa fanaan tey Ousmane Sonko ni ko loolu taxu maa jóg ndax man ñooñu yëkkatiwuma leen. te foofu laay waree woowee les sénégalais d'ici et damay wax sénégalais yi ne la xewoon mois de mars deux mille vingt et un yéen a ko réglé lii di raam aussi ja bëgg a jëm ci ñag bi yéen a ko fay génne na sénégalais yi jël seen responsabilité ma tudd léegi en français M2D mouvement pour la défense de la démocratie sama frère Cheikh Tidiane Dièye jiite ko mais démocrate yëpp nekk ci parce que gis nga man je politique. mais mouvement yi nga xam ni day boole les politique et la société civile daf ma saf parce que xanaa bu ñu nee politiciens yi duñu wax dëgg itam société civile bi nga xam ne euh, jàmbur yi lañ leen tuddee dinañ wax dëgg man ma nekkee ministre développement social ni ma daan décrire la société civile sénégalaise dama naan en état d'alerte et de veille kon kooku elle est assez avertie pour effectivement xam kan mooy faagaagal démocratie loolu moo tax mdd taxaw tem booba yeewi amagul m 2 moo moo constitué woon benn bouclier ànd ak sénégalais yi ñu taxaw pour défendre démocratie looloo taxoon ñu defendre Ousmane Sonko bu bu askan wi taxawul woon en 2021 kon ba léegi kenn waxatul affaire Ousmane Sonko kenn waxatu ko mais askan wi ñoo taxawal seen bopp parce que askanu Sénégal le sénégalais dafa am démocratie ak liberté dans l'âme sénégalais moo bëgg démocratie parce que ñun lan la ñu tuddee woon un petit pays à grande démocratie waaw démocratie boobu ku ko bëgg a faagaagal duñ ko nangu dañuy taxaw nekk bouclier te loolu laay woo sénégalais yi dama ne sénégalais yi yéen a taxawoon ba effectivement libérer la démocratie yéen a taxawoon ba sauver la démocratie yéen a taxawoon ba aar la démocratie noonu ngeen war a taxawaat. parce que am na lu xew lundi te loolu xew lundi muy le huit balaa le balaa war ngeen koo aar balaa le seize war ngeen a artu balaa le seize war ngeen a taxaw ba lii ñu bëgg a def du mën a def parce que dara xewagul dara xewagul dañ leen di dañuy dañuy làmbatu rek su nooyee rek ñu continuer dañuy làmbatu février lañu ñu làmbatu woon 2021 bi nga xamee ni continué wul mënu la dem ñun ñu daal ñu daal di tempéré bi nga xamee ni mars jot na ñu daldi xuusaat ba ñu xuusee mu dëgër dañoo dellu gannaaw Touba la ñu mujjee ji xalif bee yónnee ci saal bii ñu toog justement yàlla xam waxtu saal bii ñu toog ci lañ toog ndawal xalif bi ñëw ñu ni ko ñun du ñu xëccoog moom dara dara moo moom lépp comme que nee nañu ñu bàyyi ndax la le lendemain moo waroon na nekk manifestation ba na na na bàyyi nañu loolu far mu dialogue la woon xalif bi ni ñu wax leen lan mooy seen problème ñu def mémorandum M2D jox ko ndawul ndawul xalif bi mu yóbbu ko daal ni ñu moom itam dina wax ak moom loolu du dialogue ñun bind nañ jox ndawal xalif bi kooku ni ñu dinañu delloosi lam ñu lam ñu santoon ñun def nañ ko waaye mënuñoo xam tam la mu sant keneen defe naa defu ko de ndax ñun lañu bindoon dara dara dara defu ko ci ba ci 14 morts yi ñu waroon a seet nuñ leen di dédommager xalif bi moo ca def cinquante million ma barkeelu ca ndax man sama sëriñ bu joxee dama cay barkeelu ma teg ci un million li ci des Ousmane Sonko moo taxaw moom ak parti parce que gis nga ñun bu ñu waxee Ousmane Sonko mooy sunu champion may ñu Ousmane Sonko dara de may ñu ko dara moom moo moo xeexal boppam lépp ñun ci sunu biir coalition kenn ku nekk da koy ñaan wala nga yónni ma ci moom man mii te mën naa leen a wax ñan la ni ma waxal Ousmane Sonko mu ñëw dimbale ñu ngir yàlla ñëw campagne ci sunu sunu sunu boor ñi nga xam ne bokkuñu sax yeewi nag dañ daan wax waxal Ousmane Sonko mu ñëw wàcc fa rek. wala neel Ousmane Sonko na ñëw def cinq minutes rek ma gagné xanaa loolu magicien ko man xanaa Ousmane Sonko est devenu un magicien na def cinq minutes sama dëkk rek ma gagné te te dañ ko prouver c'est-à-dire la preuve par neuf am na ko def élection locale Ousmane Sonko def fa mun ko yow yaa ma yaa tax yaa tax ñu gagné ma ndax ba mu demee élection législative la xaalis bi gën a bari la ànd ba gën a bari la coalition ba gën a dëgër kooka gañe kon Ousmane Sonko xanaa mooy magicien bi ndakaaru gii ñu nekk ndakaaru gii ñu nekk ci la magicien gën a feeñ ñun bi ñuy bi ñuy de ndaxte li may wax mën ngeen ko jël information la parce que damaa fekk man damaa damaa fekkee xam nga maa fekkee man mii maa doon présidente commission d'arbitrage et de médiation conseil boo demee ci suñuy texte Yewwi conseil la mu tudd CMA conseil de médiation et d'arbitrage dëkk yépp ku ci nekk da nga am cër ñun Dakar yépp Khalifa Sall lañ ko bàyyeel yamul sax département de Dakar ak 19 arrondissement de tarxis na ba Rufisque moo moo moo yëlif maire Rufisque Bambey Aïda Mbodj da nga fay jiitu ci yeewi askan wi gàkkoo nga Guédiawaye Ousmane Sonko nga Ziguinchor keneen noonu keneen noonu ñu ñuy waxtaan di tapp ay nit mais am na ñoo xam dañ leen a bàyyee lépp pourtant manifestation yi xew ndakaar lay xewe manifestation yooyu su amee actuellement ñi nga xam ne ñoo nekk ci prison bi waa Pastef rek la ànd saxal liggéey yéen a ngi nii amuleen kenn ci prison bi c'est vrai hôpital fekkul leen fa kenn kenn gaañuwul Ousmane Sonko bu nekkee le champion de Yewwi Askan Wi il paie le plus lourd bi de Yewwi Askan Wi moom mooy mobiliser bañ nañ ko ba ñu ci dara ba F24 bii di door a juddu sax Abbas Fall lañ def chargé de l'organisation loolu lu ko waral ku nekk xam na ne organisation saa un coût dafa laaj xaalis dafa laaj investissement humain dafa laaj ay ñu dëgër surtout nag heure bu Abbas demee di organiser bu defee tente bi saa faaw ñu am ñu fa fanaan su dul loolu ñu ñu démonté ko bala moo ñëw ñu saboté ko man nag sama doom la moo tax ma am ci moom yërmande lool. kon xanaa Ousmane Sonko mérité na titre champion parce que nag ay nitam lañuy ñuy tëj trois cent et personnes yi nekk prison ay militants lañu dañoo décapité son parti parce que man kii de mës nañ ko yóbbu commissariat central ma ne du ma ñibbi tànk tànk tànk ànduma ak moom ñibbi daal di toog foofu aw ma sax fu ma toog ñu mujj ma yërëm ni ma dem le ministre yow tam vous avez eu à assumer de hautes fonctions dans ce pays lii waroo koo def man leen du ma ñibbi bàyyi fi doomu jàmbur ci waaw yow ñu jël ay trois cent et quelques personnes tëj ko tëj leen bu amee ñuy dee ci parti la ñuy bokk bu amee ñu gaañu ci parti lay bokk ba léegi am na ay handicapés yoo xam ni ci parti lañ nekk am na ñoo xam ne tam dañ leen jël ay Ziguinchor ak Bignona andi luyal leen kër fii pour ñu continuer di leen kii di toj ay vitre am Sénégalais yi yëpp di ko gis diaspora bi yëpp di ko gis waaw kooku suñu dalee ci kawam laaluñu suñu xol wala ñun dañ dul ay gor ñun suñu dee gor duñu dangu ko laal Ousmane Sonko te ñun bu fekkee ne dañoo def dialogue pour isoler Ousmane Sonko ki koy jéem a isoler na ko leer ne ko moom la ñu isoler ba tax muy wut ay avocat di wut ay enseignant parce que nag kenn du ànd ak moom muy isolé Ousmane Sonko moom kay day nekk ndox ak suukar boole naan wala boole tuub parce que nag benn yoon rek ngay gore walla nga goree di te man de bàyyi bi ma jur ci mag ñi la bokk ndax def na école des fils de chef daf ma ne boo boo juddoo ñëpp xam ko nga dee ñëpp xam ko diggante bi doo fi def ñu xam ko kon jox soxlawul kenn di nëbbutu fii Sénégal la ba pare nag waa Sénégal a ngi yeewoo yeewoo yeewoo yeewoo remarque c'est pas rien c'est pas rien ñun dañu jàng psychologie génétique man Piaget mooy sama disciple mais mu monsieur Mialare benn dafay def pédagogue la mais dafa jàng psychologie docteur la ci museli monsieur Mialare daf ne xale yi nga xam ne xale yu tuuti yi nga xam ne les petits européens là les petits africain ñoo leen ëpp quotient intellectuel parce que nous on est né intelligent l'africain est né intelligent nee na su ñu nekkee xale bu tuuti de zéro à trois ans nee na l'enfant africain moom mooy ëpp quotient intellectuel parce que ñun suñuy ndey dañ ñuy boot di dem ca teen ba di dem ca tool ya stimulation extérieure yooyu mooy alimenter xelu xale bi ba xale bi gën a intelligent xam nga kay kañ lay def bu commencé jëm mag di poser ay question ñu naan ko jàllal fële xale du wax loolu contrairement à l'européen européen bi moom lu mu laaj doomam mu wax ko ko ci lay commencé di jéem a dab l'enfant africain mais nous ne sommes pas bêtes ñun dañu dañu am intelligence intelligence boobu moo tax lu fi nit xaw a wax ñu xaw koo xam da ngay gis ko wax ba teeral daal di leen jox yéen journaliste yi seen maanute googu ngeen teg ko ni mu leen ko waxee sénégalais yi ñoom boobu seen xel a ngir rëkk loo xam ne kenn xamul nu mu toll jëli nañ la bu yàgg nga defoon ñu dof la ñu fekk ñu ngay wuti lu ñu la faje may wax Ousmane Sonko ak waa Pastef li leen man sama parti muy ànd saxal liggéey bi nga xam ne lu mu war a def def na ko kenn du ko kenn du ko wax ni ko demuloo ay élection kenn du ko wax amoo baas kenn du ko wax amoo ay conseiller kenn du ko wax amuloo présence africaine euh, présence parlementaire ñaari yoon man bi may dem élection 2017 ànduma kenn te maa doon dixième sur les 47 listes ma nekk député ba léegi am nañ député assemblée kon ci parti yi nga xam ni six partis opposition yi nekk assemblée ànd saxal liggéey ci la bokk am ay cadre am ay femmes am ay enseignants am ay jeunes am ay étudiants ànd saxal liggéey boobu ñëpp dans sa globalité ñoo ñëw ànd ak Ousmane Sonko di ko wax mas di gërëm nag waa Sénégal man de miin naa jigéenu Sénégal parce que réccuwuma lu ma leen doon liggéeyale en tant que ministre de la femme mais jigéen yi am maanaa ci réew mi ñëpp woo nañ ma ku ma ci woo danga naan ma ana sunu doom ñëpp a doomoo Ousmane Sonko ñëpp a ko yërëm ñëpp a mettit lu li mu nekkee ñëpp a ànd seeni doom di compatir ci li nga xam ne moo ko dal loolu nag dama leen ciy gërëm bu baax di leen gërëm aussi ci turu yaayam parce que wóolu nañu lool ñun jigéenu senegal moo tax mu toog soor te xam ni ci Ndakaaru la ñuy noote Ousmane Sonko waaye nag dañuy wax naan ku jur yaram ku jënd sakkatal nag dañoo jur dañoo jur parce que dañ ni jur yërëm te ku jënd sakkanal kon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax may jeexal nag ci M2D bi nga xam ne wax naa leen ni mois de mars lu lu lu fi réglé rek yéen a ko réglé waaye di am yaakaar itam ci F24 F24 man fii mu nekk dama leen a sopp xaw ma sax exactement ñu bëri ñu fa nekk mais sopp gi ma leen sopp mooy sama expérience ak M2D m d au nom de la préservation de la des acquis démocratiques au nom de la défense de la démocratie M2D dafa nekkoon bouclier Ousmane ko nañ ko protéger nañu protégé Ousmane Sonko kii taxul de booba yeewi amul de waaye nag askan wi ñoo jóg ànd ak m askanu Sénégal boobu nag tey laay woo di woo S24 Ousmane Sonko est signataire de la charte de S24 ñun ñëpp ci yeewi askan wi nous som signataires waaye je de l'engagement de de de du m ma jàpp ne parce que ñu dem yu bëri ñu nekkoon m ñu ngi F24 may woo sénégalais yi ni leen la manifestation du 12 mais bi F24 di def bu ko kenn tardé man la kuy jooy dund bi na nga ñëw kuy jooy sikki sàkk bi suñu président nga xam ne mooy suñu kilifa di per de la nation kuy jooy sikki sàkk bi na nga ñëw. ku ko bëgg a wax ni ko du def troisième candidature na nga ñëw ku ko bëgg a wax ni ko dañoo sonn na nga ñëw ku ko bëgg a wax ni ko doyal nañ na nga ñëw ku ko bëgg a wax ni ko ñaari Sénégal yi mu créé na nga ñëw F24 a ngi woote ma di leen ñaan nag ñu taxaw bu baax a baax ni waa Sénégal yëpp taxawee parce que day làmbatu rek su laalee mu nooy rek mu continuer kon nag du nooy c'est le président de la République Macky Sall du mës a nooy baal Ousmane doomi jàmbur la bàyyil Ousmane jeunes yi nee nañ nga bàyyi Ousmane étudiants yi nee nañ ga bàyyi Ousmane mag ñi nee nañ nga bàyyi Ousmane parce que nag ay jaboot lañu te jaboot jàmm ko jikk